alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi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 di ñaan li nuyoo bi làmboo yàlla na ci yàlla làmbale seeni mbir làmbale waale ci suñuy mbir yàlla na ci yàlla labal seeni soxla yi labal ci suñuy soxla yi defal ko mbooleem jullit ñi fuñ mun di nekk ci àdduna bi di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow rek li ma sosoon ak yow ci wàllu julli waxoon naa la sarta ya te buñ ne sarta rek mooy dafa nekk ci biti julli ga buñ ne ponk walla ñu ne farata dafay fekk mu nekk ca biir julli ga li naa la ponk yi wala sarta yi démb mu nekkoon juróom benn waxoon naa la ko bokkoon na ci jublu xibla waxoon naa la xiblaay ki nekk ci gaal waxoon naa la xiblatul iltihaam ki nekk ci tanjamal di xeex ci xare waxoon naa la xiblaay ku nekk ci avion bi waaye ala kulli haal charte ya wale woon naa la ci sax sutural sa awra waxoon la awraay góor ak fa mu tàmbaleeg fa mu yem waxoon la awraay jigéen ak fa mu tàmbalee fa mu yem xatta waxoon naa la tamit bokkoon na ca charte ya bayi wax bala ngay sóobu ci julli gi boo xasee sóobu ci julli gi di waxati rek wax joo xam ne yaa ko tey julli ga dafay yàqu waxoon naa la bokk na ca sarta ya tey tabaarakallaahu bàyyi jëf ju bëri yooyu yëpp dafa yàq julli mu tax nga julli di xasanooka okkatooka fay sa portable beeg njoof sa sikkiñ beeg takkaat sa montor beeg sa kaala gi wadd ngay faraka jëlag boobu bëree rek dafa yàq julli ga kon tey suñ bopp waxtaan mooy farataay julli laa lay wax farataay julli lu bëree bari la ah danaa la ci limal li ci boroom xam-xam yi dëppoo nga xam ne dana mat fukki farata ak juróom benn soo ma dégloo ma farañ fànce la farata yooya benn bu ne ak moromam benn bu naa la ci indil aaya ba alquran mbaa ma indi la ci hadis farata yi fukk la ak juróom benn yenn ya ñëpp ca dëppoo yenn ya dañ caa wuute danaa la wax yeñ dëppoo ak yeñ wuute yëpp nag bu la neexee nga jël sa big bi commencé di noter farata julli bi ki njëkk mooy xiine xiine googa yonent bi wax na ko moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa wax ne innamal a'malu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa xadis boobu xadis la boo xam ne bu wér a wér la tabaarakallaahu boo demee ca musnad danga ko ca fekk yonentu bi ne mbooleem jëf yi mi nga xajoo rekk ci yéene yi kon nag boo demee bay julli daal li war ci yow mooy na nga yéene yéene ga nag dañoo bëgg nga lëkkale ko ak kabaaru xarmal ja kabaaru xarmal ja ànd ak yëkkatiku loxo yi ba ca mbagg ya bu la neexee tamit boo ko tàllalee mën naa yëkkatiku ba tolloog nopp ya su boobaa nag yow miy julli mën ngaa yéene julli gi ngay julli yéeneel su fekkee julleeg fay la nga yéene ne yéene naa Euh, fay julli gi bu dee julleeg jooxe la nga yéene jooxe ga bu dee julleeg tusubaar la nga def taayin yéene ga ci sa xol ne tusubaar la mbaa tàkkusaan la waaye am maa di ko wax ci sa làmmiñ nag bidaa la yéene naa julli di ko wax sa làmmiñ matu ko yonent bi dund na ba génn àdduna mosta yéene wax ko ci làmmiñam saxaabaam yépp ñu yar mu yar leen mosu ñoo yéene wax ko seen làmmiñ taabiina yi musuñ koo wax taabi taabii na yi mësuñ koo wax mu duhut ñoom te nekk di ay boromi xam-xam tamit yéenee mësuñ koo wax ndax yàlla daal xakim la dafa jël jaamu yàlla yi séddale ko cër yi xam na ci cër yi lu tànk moom ci julli xam ci lu jëbi moom xam lu bakkan moom xam lu loxo moom xam lu làmmeñ moom xam lu xol bi moom yooyu yëpp nag la xol moom a ci ëpp doole waaye moo ci gën a néew moom lim xam rek xol bi mooy yéene ak teewlu jëf jë tànk bi moom taxawaay ya su ko defee jëba moom sëpp loxo ya moom yooru walla boroom xaj ko yépp baax na wér na waaye tamit làmmiñ wa moom jàng alquran ca saar yaag fatiha ja sàbbal ya waaw kon nag moom xol benn dong la moom muy yéen a jëf jaag teewlu ko lam moom ak néew soo ko ko xeñee jox ko làmmeñ tooñ nga xol moo tax daal xol moo moom yéene moo tax an niyatu mahaluhal bu comme nag palaasam mooy xol bu ko jox làmmeñ di ko waxati li lay xamal ne làmmeñ lam wax konte wut boo newoon tey da ngaa yéene julleetu subaar sa làmmeñ wi wax ne kat naa julli tàkkusaan te fekk xol ba moom tusubaar a ca su boobaa la la xol ba fas rek la ñuy jàpp waaye la la làmmeñ wax kenn du ko konte ndax alquran mu ne wa laysa alaykum junaahun fii ma aqtatum bihi walakin ma taammadat qulubukum wa kaana allahu gafuran rahima kooku tabaarakallaahu yàlla wax na ko mu nekk ci alquran kon nag nga yëg ci ne daal dëgg-dëgg yéene daal palaasam moy xol amma nag di ko wax ci làmmeñ am na ci yoo xam ne sax dañ ko ca yokku wax wax ba wax lu ëpp naan fas naa yéene julli tusibaar ji tey nekk ñeenti rakkaa tey ma fas yéene nekk yilimaan ja yéene naa wala nekk maamoom ja yéene naa fay ga wala yéene naa joxe ga yéene naa farata gim nekk farata di lima lima lim ba mu nekk fukk yooyu yëpp kenn santul la ko benn hadis bu ca wàcce xamut duhut bu wér duhut bu wéradi hadis bu wéradi sa xamut ca loola waaye daal xéene daal xol dong moo ko moom moom moom moom ndax al li lay xamal ne xole ko moom li baat biy tekki ndax an niyatu luxatan mooy alqasdu rek waaye nag istilaahan mooy alqasdu li addaayi faridati salaati su fekkee si julli nga ne wala bu fekkee xaj nga ne alqasdu li adaa ifradatil xajji bu ja saw mu tamit noona kon daal première farata ci julli mooy xéenee xéene xolo ko moom bu ko kenn di ko joxati làmmeñ soo bokkee ci ñi nga xam ne lu ñu ci seen xol feek waxuñ ko ci làmmeñ dañu jàpp ne xéene wuñ ba tax ñu tudd ko ci seen làmmeñ jéggal nañ leen tudd ga moom la seqalin ne wala fuha waasiun baatal ga dagan na waxut farata la waxut sunna la waxut sopp nañ ko mais dafa na dagan na rek lu dagan nag mooy nañ ko fi bàyyi rek def ja yool nekkut ca bàyyi ga bàkkaar nekkut ca te fiñ wax ne fa nga war a yéenee dëgg dëgg foofa wax mën amu fa place fi nga waxee ah ba fi ngay waxee ra lañ bëgg nga yéenee allahu akbar ala commencé ra la daanee diggante abara gi nag foofu lañ bëgg yéene gi tàbbi fa waaw foofa nag dara wax xajatu fa allahu akbar yi rek moo fa xaj kon première farata ci julli mooy yéene wax naa la ko ñaareel ba mooy takbiratul ihram yi kàbbaar waxarmal mooy kàbbaar gi ngay hubbee julli gi yëkkati sa loxo yi dañ koo sopp ba mu tolloog nopp ya walla nga yëkkati ko ba mu tollook mbagg ya yooyu yëpp boo ci def dañ koo sopp waaye ala kulli xaal bu yëkkatiku wutoon tamit yàqu dara wax allahu akbar ja daal mooy farata yëkkatiku nag bëgg nañ ko sopp nañ ko yonent bi daana ko def li lay xamal ne takbiratul ihram farata la yonent bee ko wax yonent bee wax ne miftaaxu salaati at tahuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu hadis la boob imaam ahmad moo ko génnee ak imaamu tirmidi yu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli daal caabiyam ja mooy laab la cay dugg di ca soobu mooy kabaaru xarmal lañ cay xewee ko mu tekki na jeex na mooy rek asalaamualeykum allahu akbar nag moom rek mooy doy baat boo waxati bu dul allahu akbar doyut allahu azamu yàlla màgg na lay tekki waaye boo ko waxee julli gi yàqu na allahu ajallu yàlla màgg na lay tekki boo ko waxee julli gi yàqu na allahu akbar rekk lañuy wax ndax moom lañ déggoon yonent bi doon wax tamoo wax ne sallu kama raaytumuni usalli moom nag kabaaru harmal de nañ ko takk takbiratul ihram ndax kat moom mooy dugal jullit bi mooy dugal jullit bi julli ci xurumu salaati julli xurum la ni màkk nekkee xurum ba ay rabam duñ leen rey ay garabam boo xarmale doo leen dagg nu mag madinatu munawara yonent bi def ko muy xurum noonu tamit la julli nekkee xurum yow nag bala ngaa mën a dugg ci xurumu julli na fekk nga def takbiratul ihram muy allahu akbar boo ko xasee wax rek dugg nga ci xurumu julli su boobaa nag xas xas nga ci dugg yeneen wax yëpp xaraam na ci yow yeneen wax yi daga noon waxtaan ak sa xarit waxtaan ak sa mbokk ak yu mel noona daganoon na waaye tey xaraam na ci yow li xaraamoon ci yow tamit gën naa xaraamati ci yow kon li xaraamoon gën naa xaraam li daganoon te duhut lu jëm ci julli gi yëpp tamit mu gën a la xaraam looloo tax ñi di ko tuddee takbiratul ihram dafay dugal boromam ci xurumu julli dafay waral tamit boromam li ko daganoon yëpp xaraam ko dafay waral tamit li xaraamoon lépp gën a xaraam ci moom kon nag dana war ci agi julli ji mu hubbee ko allahu akbar bu koy wax nag na xemale tudd ga rek bañ a xëcc lu xëcc wut bañ a ñàkk a xëcc lu ñu war a xëcc bu mu fa nekk xëcc ne allahu akbar kon fa mel ni ngay laajte ne ndax yàlla dafa màgg loolu kenn santut la ko kon bul xëcc loo war xëcc bul ñàkk xëcc lu ñu war a xëcc su ko defee kon allahu akbar rek moom ngay wax. sopp nañ tamit tabaarakallaahu boo koy wax nga déggale ko sa bopp allahu akbar jooju yow mi koy wax na nga ko dégg ki nga xam ne tamit dafa dend ak yow bëgg nañ moom tamit mu dégg ko su fekkee ne nag dangaa jiite nit ñi bëgg nañ nga wax ko ca kaw ndax mooy tax maamum yi nekk sa gannaaw xam ne sóobu nga ci julli gi moo tax kon noonu lañ ko bëggee su ko defee nag euh, da bëgg nañu euh, sopp nañ mu déggale ko boppam su fekkee nekku di ku tëx waaye ku tëx nag xam nga wax dëgg yàlla man taw Allaahu akbar ba déggale ko boppam mënoo ca dara waaye tamit na fekk euh, bu fa bu fa bu fa coow nekkee yaa ngi julli tabaarakallaahu coow xaw a dend ak yow foofa noo gën a yëkkatikoo sa baat bi moo gën a baax ndax euh, baatu yàlla moo war a kawe waaye dara waru koo kawe su ko defee kon nag allahu akbar ngoog xam na ci ñeneen ñoo xam ne mbëri masabu malik allahu akbar la ñuy wax xam na ci yeneen masahib yoo xam ne dañuy wax ne allahu wa akbaru def ko muy ñaari baat allahu wa akbaru waaye li nag njuumte la gu yaatoo yaatu rek mosuñoo dégg yonantu bi wax ko te moo ne woon sallu kama raaytumuni usalli kon waxagum naa la ñaari farata bi ki njëkk mooy yéene bu ñaareel bi mooy kàbbaaru xarmal ñoom ñaar sax ñoo a ànd fi ngay kàbbaaree xarmal ngay bi nag mooy taxawaay ngir kàbbaaru xarmal taxaw gi nga taxaw ngir wax allahu akbar pour tàmbali julli ga taxawaay booba noona farata la boo amee kartan ci mën a taxaw nga toog def ko julli gi yàqu na soo manee toog nga tëdd def ko julli gi yàqu su fekkee yow mi julli nag toog rek nga man nga toog wax allahu akbar su fekkee tëdd rek nga man nga tëdd wax allahu akbar yàqu dara waaye nag su fekkee da ngaa mën a taxaw daal taxawal nga wax ko xiyaamu booba farata la moom la alquran ne wa quumu lillahi qaanitiin ah, moom tamit mooy waxi imran ibnu xusayni ba mu laajee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama naka laay jullee booba xam naa taxawaay jàppandiwul ci moom na ko salli qaayiman fa in lam tastatix fa qaaidan fa in lam tastatix fa salli ala janbin xaddis boobu buxaari yu moo ko génnee mu ne ko soo julli soo ko mënee taxawal soo ko mënul nga toog soo ko mënul nag xalaa kulli xaal nga tëddee wet moo tax ku ko man di julli taxawal bul wéeru soo ko mënul nga taxaw wéeru soo ko mënul nga toog ñàkk wéeru soo ko mënul nga toog wéeru soo ko mënul nga tëddee ndeyjoor wala nga tëddee càmmooy wala sax nga tëddee jaaxaan ñeent yi ma la njëkk a wax toftala leen niñ toftalooxee dafa war fu fuqaaw yëpp d'accord nañ ci maaliki yu na yi shafii yu na yi ñett ya ca des nag toftale leen dafa nekk ci yoonu cofeel boo mënee tëddee ndeyjoor tëddee càmmooy yàqut dara soo mënee tëddee càmmooy tëdd jaaxaan yàqut dara yooyu yëpp yàqut imaamu Nasaayi dool na ca ne fa in lam fa mustalqiyan nga tëddee jaaxaan ndax kat laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha waaye nag loolu bu ñu koy wax mooy julleeg farata waaye bu julleeg naafila nit ki mën naa taxaw mu bàyyi ko fa toog yàqut dara nga julli naafila safaak wi tara yeneen naafila yi fekk yaa ngi toog fekk ma doon ngaa taxaw dara nekkut ci waaye nag dañ lay bindal genn wàllu yoolu ku taxaw ki taxaw daal bu waroon a am téeméer yow nga toog te a taxaw dañ lay bindal juróom fukk su fekkee toog rek nga man nag mooy sa farata kee tamit taxaw la man xëppalewul la dara ndax kenn ku ne dangaa jaamoo yàlla fi nga toll rek attaqullaa mastataatum kon ñeenteelu farata ba mooy jàng fatiha muy bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba wa jeex farata farata la fatiha ñu jàng ko ndax yonentu bee wax sallallahu wa sallam ne la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab xadis boobu buxaari yoog muslim yëpp joo ko génnee mu bokk ci xadisu ubadatu bnu samit waaye nag bi yonent bi waxee loola boroom xam-xam yi nag kenn ku ci nekk ñëw tànk ci géej gi sa dégg yonent waxam géej la kenn ku ci nekk niñ ko déggee rek noonu nga cay tooyee imaamu Shafii yu moom ni déggee loola ak ni ko Malik ak Abu Hanifa ak kuréel ci xanaa bi lu na yi déggee ko duñ benn boo jëlee ku mel ni imaamu Malik Abu Hanifa ak li hëpp ci mazhabu Ahmad ibnu Hanbal dañ na jàng fatiha daal faratala ci képp ku julli yow kenn boo julli yow kenn boo jàngut fatiha sa julli gi yàqu na kooku moom ñetti ngir yi yëpp ci dëppoo Malik Abu Hanifa ak li ëpp ci ngiru imaam ahmad waaye mu ne tamit jàng fatiha farata ci imaam kuy jiite nit ñi yow mi jiite nit ñi jàng fatiha farata la ci yow soo ko bàyyee julli ga day yàqu malik d'accord na ci ak ngiram mi yëpp abu hanifa d'accord na ci ak ngiram mi yëpp imaam ahmad ak li ëpp ci ngiram mi d'accord nañ ca loola mu des nag kenn mooy koo xam ne dañ koo jiite nag moom dañ laa jiite ndax jàng fatiha dafa nekk farata ci yow wala duut farata ci yow Malik ak Abu Hanifa ak li hëpp ci ngiru imaam Ahmad ñu ne dañ koo sopp boo jàngut fatiha tamit yàqu dara ñoom ñu ngi tegtaloo xadiisu jaabir bii jaabira wax ne moo dégg ci yonent mu ne man salla rakaatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitaab lam yaqra fiha bi fatihatil kitaab lam yusalli illa an yakuna wara al imaam axrajahu tirmisiyu mu ne man ma dégg yonent bi wax na ku julli rakkaa te jàngoo ca fatiha julliwoo aa julliwoo mu ne lu du nga nekk ci gannaaw ilimaan kon nag dafa setti kon bu lu du nga nekk ci gannaaw ilimaan li mu teg kon boo nekkee ci gannaaw ilimaan jàngoo fatiha yàqu dara ci sa julli gi ndax jàngi ilimaan moo la yóbbuwaale géew yóbbuwaal na la géew neex naa gëm yaa ngi nii boo tardé fatiha ja tarde saar wa fekkee rukkoo ba ca rakkaa ba sa cër ya dal ya sa cër ya dal sa rakkaa booba moom nga ko fekkee nga ko doo ko fayati te fekkee ko fatiha ja kon boo ne ku jàngut fatiha sa julli gi yàqu na ñëpp ko moom kooka nag foo koy dugal kon daal li gën a wér sa ilimaan bu la xasee jiite jàng fatiha duhutut farata ci yow soo ko jàngoo yàqul dara boo ko jàngee yàqul dara boo ko jàngut tamit yàqul dara ki sa julli gi bu fekkee nag ci masabu imaamu Shafii yu la dafa ne faatiha daal képp ku ñu jiite ci julli ak nga julli yow kenn nag nga jiite ña ci képp nga koo war a jàng moom dafa jël hadis bi laa salaata li man lam yaqra bi fatihatil kitaab def ko muy amiyatu def ko bàyyi ci amiyatoom nga ne ñettay julli kon ñett jëpp ko moom ñett rek ay julli ñeent julli wuñ juróom julli wuñ ñett rek kay julli benn nga julli yow kenn mbaa nga julli jiite mbaa nga julli ñu jiite la moom nag mu bàyyi ko ca amiyatu ga ne kon ñëpp ko moom imaamu Malik nag moom dafa ne amu muxassas la xam juñ taxsiisal la ay julli mais ñaar la ca yonantu ba nangu naa ñaar la ca yonantu ba namm mooy kuy julli yow kenn ak ku julli jiite waaye kuñ jiite moom sa ilimaan moo la jàngal hadisu jaabir bi wane na ko man salla rakaatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab lam yusalli illa an yakuna wara al imam buxaari tirmisi yu mu indi hadis boobu beneen bi boo demee ca muwatta bu imaamu malik yonentu ba wax na fa hadis yonentu bi ne xawlul imaami xawlukum waxi seen ilimaan mooy seen wax kon kay jàngi ilimaan yu baal na la géew ndax loolu tamit xel nangu na ko waa entreprise bi yëpp bu ñu xamoon benn soxla yóbbu ko ci kilifa entreprise bi wala waa ministère bi yëpp am benn soxla yóbbu ko ci ministère ba yóbbu ko ci ministre bi fekk ko ci ministère ba waaye waaye ñoom ñëpp bu ñu bëggee wax ministre bi du leen mën a tontu waaye dañoo war a tànn kenn mu wax ci seen tur loolu la war a porte prole di am ci këru diine yi porte-parole di am ci gouvernement nga xam ne lu ñu wax gouvernement baa ko wax kii lu mu wax waa kër gaa ko wax su boobaa nag moom ala kulli xaal bu waxee waxaaleel nañ ñëpp kon loolu kon day yóbbu kon tamit comme nag gouvernement bu nangoo porte parole nit ku diine kër nangu porte parole yàlla du bañ porte parole ndax ci moom lañ jàngee lépp kon tamit maamoom yëpp ilimaan mooy seen porte parole ci yàlla bu jàngee yóbbu yóbbuwaal na leen géew ñoom ñëpp moo tax ci masa bu Maalik su fekkee jàng yeelu la la muy wax kenn déggut ko man ngaa jàng nànk waaye bu sa faatiha gi jeexut bu rukkoo tamit ba ko fa de bu rukkoo ànd ak moom buy jàngi biral noppil ndax déglu gi ngay déglu jàngam mi yàlla dafa la cay bindal yool ida quri al quranu fastamiu lahu wa turhamun kon lii daal mooy wuutee masahib yi wax naa la ko Malik daal ak Abu Hanifa ak li ëpp ci ngiru Abu Ahmad ibnu Hanbal ñoom ñëpp dañoo d'accord ne buñ la jiitee jàng fatiha waratul la soo julli yow kenn jàngal fatiha boo julli nga jiite jàngal fatiha imaamu saafi yu ne jàng fatiha daal ñett ñu julli ñëpp moom la war ñoom waa makka boo demee mazhab bu saafi lañuy jëfandikoo foofa moo tax moom bu imaam ne wala na dafay toog tuuti ba maamum ngi jàng fatiha muy door a dugg ca saar wa kon lii mooy wute bi fatiha moom nag werante xam na ci ndax buñ koy jàng war nañoo wax bisimillahi rahmaani rahim wala waruñ koo wax li hëpp ci jumhuru fuqahaaw yi dañ ne basmala muy bismillaahi rahmaani rahiim benn aaya la ci suratu namli loola moom mu mufassiruuna yi d'accord nañ ci fuqahaaw yi d'accord nañ ci fi yàlla waxee ne innahu min sulaymaana wa innahu bismillaahi rahmaani rahiim muy aaya kon foog nga bokk ci innahu min sulaymaan wa innahu bismillaahi rahmaani rahiim kon baadu du min su min min suurati li lenn aaya la ci suuratu namli werante nag aham ndax moom fa bismillahi rahmaani rahim jooju ci fatiha la bokkam wala bokkut ci bu ca bokkee aaya laam matut aaya werante xam ca waxtalafoo hal hiya ayatun min al fatiha am hiya ayatun rek loolu nag moo xam werante boo jëmee ku mel ni imaamu Saafi'i yu dafa ne bismillaahi rahmaani rahiim aaye la ci Fatiha aaye la ci bopp saar wu ne ci saari alquran yi téeméer ak fukk ñeent ya ba mu mooy baraatu rek moo ci amut bismillaahi rahmaani rahiim loolu Saafi'i gëm imaamu Malik wax ne. bismillaahi rahmaani rahim bokkut ci fatiha duut ca aaya bokkut ci looloo taxan Malik mi jàpp ne bokkut ca mu ne kon booy julli man ngaa tëb rek dal ci alhamdulillahi rabbil alamina bàyyi bismillaahi rahmaani rahim Shaafi yu mu ne ca bokk moom du nangu mukk nga julli te waxuloo bismillaahi rahmaani rahim loolu la gëm moom sax dafa ne comme aaya la ci boo ko bàyyi fekk yaa ko tey julli gi yàqu na soo ko tayut suggatal ko xabla salaam lii la saafi yu gëm buy Malik nag boo ko bàyyee dara waru ca soo ko indee sax ki julleeg farata ci bu Malik sib nañ ko kon loolu moom la mooy mooy mooy maanaam mooy mooy mooy mooy gisu maanaam maliki yetu yi waaye ànd ak loolu lépp nag maliki yu ne yëpp ànduñ ci loolu mooy gis-gisu Malik parce que Malik ak maliki yu duñ benn Malik moom loolu mooy gis-gisam waaye nag lu bëree bëree bëree bëri ci borom ngiram mi ku mel ni ibnu maslamata ku mel ni ibnul arabi ku mel ni maanaam soxnuun ñoom ñu ci bëri ànduñoo ak Malik foofa dañ ne daal kuy julli ku ne na nga ko hubbee bisimillahi ca fatiha ja ñu ne leen lu tax ñu ne ah boroom xam-xam yëpp amul kenn kenn ko wax ne ku wax bisimilahi rahmaani rahim su julli gi yàqu na kenn waxu ko amul kenn ko wax ne ku wax bisimilahi rahmaani rahim am nga bàkkaar kenn waxu ko waaye mun nag borom xam yi am na ki ñu wax ne ku julli te waxoo bisimilahi rahmaani sa julli gi yàqu na saafi loolu la gëm moom la wax ñoom nag kon ñoom ñu ne julli goo xam ne dafa wér ci boroom xam-xam yëpp. moo gën a dal xel julli goo xam ne lenn la ci borom xam-xam ya ñoo ko nangu waaye ca des nangu wuñ ko ñoom kon loolu lañ ko gisee ñooñu nag Cheikh na Tidiane ca la bokk moo tax Cheikhu Tidiane dafay recommandé ne bu ñuy julli nañ wax bisimillahi rahmaani rahim hubbee ko fatiha ji kon loolu lépp xuutee la ixtilaafu ummati rahmatun waaye ala kulli ñu jàpp ne bisimillahi rahmaani rahim ci fatiha dañ ne bu ca bokkoon yàlla du ko teel a baamu yaa ngi nii yàlla dafa ne bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waxal rahmaani rahim ñu ne rahmaani rahim nag bu bisimillahi rahmaani rahim bokkoon foofu du ko baamuwaat cheikh na tijaani shérif wax ne ñaari rahmaani rahim yi duñ benn rahmaani rahim gële ca basmala yërmande la ak xéewal gu sax dàq ca jëmmi yàlla ja xablewut ko taylewut ko mayewut ko rahmaani rahim ji nag yërmande la xéewal la gu maye mooy dëbbal ne li yonent bi ne yàlla ne am na téeméeri yërmande juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent yëpp fa koo denc ba àllaaxira benn ba rek la wàccee ñi ci suuf yëpp di ci yërëmante bàyyi di ci yërëm doomam doom di ci yërëm baayam yaay di ci yërëm doomam doom di ci yërëm yaayam nga ci yërëm sam mbokk di ci yërëm ku feebar yërënt bi dem na ban sax mala dana dem ba yërëm ci doomam dëgg ko ba ci kanam rek mu teggi dëgg wa ngir yërmande jooja moom lañ leen yàlla séddale ñëpp bokk ko kon bisimilahi rahmaani rahim a ngoog ak gisunu borom xam-xam yi la ca Malik wax wax naa la ko la ca imaamu Saafi wax wax naa la ko su ko defee tamit wuute bi nag lu fi yàgg la dippi ca sahaaba ya ca la wuute bi commencé war nañ ko wax waruñ koo wax buñ ko waree wax dañ koo war a biralem dañ koo war a yeelu boo demee ci tafsir bu nga tuddee tafsiru xaasin gis ul awal ba dana la limal lu hëpp ñaar fukki saxaaba yu gëm ne war nañ koo wax limal la saxaaba yu bari yu wax ne waruñ koo wax xuutee booba nag moo ñu topp topp boroom xam-xam yi ba ca Shaafi yu topp borom xam yi ba ci Malik bi ci tegu nag kon fatiha ngoog mooy ñeenteelu farata ci julli fatiha moomu nañ góor góorlu ba buñ koy julli buñ ko yàq buñ ca dugal lu ca bokkut buñ ca génnee tamit lu ca bokk lépp baat ya nañ ko indi e, jàng ko jàngin woo xam ne wu sell la ndax comme fatiha bu ñëwut julli ga day yàqu moo tax suñ mag ñi luñ man man fatiha musuñoo hóolu ne man nañ ko sëriñ Abbas Sall góor ak yàlla ga la muy man man fatiha ba mu demee màkk dafa dem ba ca ilimaanu màkk ji mën a ko déglu ma ma tari fatiha ndax man naa ko mu tari ko mu rafet lool mu ne ko yow kay dañuy jàngee ci yow fatiha waaye yow kenn du la jàngal fatiha kon wane ne mag ñi luñ man man dara taxul ñu xóolu ci seen bopp kon nag kenn ku ki nekk na fexe ilimaan jëla gën a jege daaray alquran jëla gën a jege dem fa nga góorgóorlu ba xam fatiha nga tari ko ca kanam ilimaan ja tari ko ca borom sëñ daara ba ca kanamam ba mu xam ne sa fatiha rafet na nga ko continuer ki julli ga juróomeel ba ca farata taxawaay ngir jàng fatiha taxaw ngir kàbbaar farata taxaw ngir jàng fatiha farata la kon fatiha jàng ko farata la waaye taxawaay ba tamit farata la ci ku mën a taxaw su ko mënul mu toog mu taxaw wéeru jàng fatiha su ko mënul mu toog ñàkk wéeru jàng fatiha su ko mënul mu toog wéeru jàng su ko mënul nag nu mu mënee moo xam tëddee ndeyjoor wala mu tëddee maanaam càmmooy mbaa mu tëdd nu mu def baax na kon taxawaay ba farata la alquran moom la wax ne wa qumu lillahi qaanitiina waaye nag buy ci naafile bu la neexee nga mën a taxaw jàng fatiha nga bàyyi ko fa toog jàng ko su boobaa dañ lay bindal genn wàll yoolu ku taxaw rukkoo boobu ngay gis farata la mooy juróom-benneel bi te mooy téye sa wóom yi ba mu cé ba ba mu dal nga xam ne tamit nag tolloo ba muñ sotti woon ndox ci sa gannaaw gi du jëm suuf du jëm gannaaw dafay nekk ci diggu xuru gannaaw wa waaye xam na ñoo xam ne bu ñu rukkoo da ngay fon dañoo dañoo taxaw xam na ñoo xam ne tamit bu ñu rukkooy da ngaa dañoo juutu yàlla bëggul xëppal bëggul mànkil dafa bëgg rek nga nekk ci wasatiya kon nag nekk gim nekk di rukkoo alquran wax na ko yaa ayyuha alladina amanu rukuu wasjudu waabudu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflihun suratul hajji julli nag kon rukkoo farata ba mooy julleeg niiw julleeg niiw xamul rukkoo moom léppam taxawaay la ak ñeenti kabaar ya ak ñaan ya ak sëlmal ba waaye foofa moom rukkoo amul fa yoon bi ci tegu tamit ala mooy juróom ñaareel ba moo yëkkatiku ci rukkoo ba rukkoo farata la waaye bu rukkoo bi sottee ngay siggeekuwaat dem bay taxaw di wax sami allahu liman hamida siggi googa nga siggi farata la siggi gën balaa mat xaaral nga siggi ba taxaw ba sa cër yi dal nga door a dem nag door di sujjóoti waaye si gi rek sa cër ya dalagut nga ne yaa ngay sujjóoti julli nga yàqu na da ngaa bàyyi farata moo tax ka doon ñaawal julli ci kanam yonentu fa ñëw yonentu yonentu bi toog jàkka ji mu julli sëlmal yonentu bi ne mi ngi mel ni julli woo demal nga julli haat mu ñëw julli haat mu ne ko demal nga julli mi ngi mel ni julli ba muy ñetti yoon mu gëñal ko ne ko su ma doon julli ba dee nii laa mën a jullee ne ko kon da nga julli ba dee doo am génn julli gu rafet foofa ba mu koy wat dafa ne ko su marka xatta tatma inna rakian suma rfa xataa tatma inna qaiman mu ne ko na nga rukkoo ba dal nga door a nga door a nag tabaarakalaaw jug taxaw ba ba taxaw joddu sa cër yi dal nga door a root na dem ci sujooti juróom-ñetteel ba ca farata ya mooy sujoot sujoot na ràpp sa jëbi ci suuf mu ànd ak bakkan ba nga bañ koo sujoot nag ci sajjaada yu nooy yi ndax lañuy ñuy ba bëgguñ mu nekk rafaahiya bañ ko sujjóot ci moket yi ndax kon du mën a dal loolu gënut waaye booy sujjóot daal ràpp sa sa sa jëbi rek ci suuf si wala nga def ko ci peron bi wala nga def ko ci laltu boo xam ne nii amul nooy nooy bu ëpp boo xam ne épaisseur bi day waral sa sujjóot ba du mën a yegg ca suuf alquran wax na ne sujjóot faratala moo tax mu ne yaa ayyuha allazina amanu rku'u mu tekki ne wasjudu wax na fante wasjud waqtarib kon sujjóota ngoog ca farata ya la bokk ba ca tegu tamit jaam bi sujjóot am na solo yonentu bi sallallahu alayhi dafa daan wax ne sama borom de dafa maa digal naa ko sujjóotal sama juróom-ñaari cër yi moo tax dafa daan digle ida sajada al abdu sajada maahu sabatu aarabin ay aadain wajahu wa kafaahu wa rukubataahu wa qadamaahu mu ne ab jaamab yàlla buy sujjoot dafa war a sujjoot ak juróom-ñaari cër yi mooy sujjoot sa jëbi ne ràpp ci suuf sa ñaari ténqee ci suuf sa ñaari bëdwoom yi ak sa cat tànk ya loola boo calculer juróom-ñaar la sujjoot bi yàlla dong moo ko xeyoo koo ko defal ku dul yàlla bokkaale nga ko waaye sujjoot bu nit defal moromam bu mën a doon te fekk juróom-ñaari cër yi matul rek kenn du ko tuddee sujjoot ci sharia sujjoot ki sharia juróom-ñaari cër a koy def moo tax bul gis nit ki sujootal moromam nga ne bokkaale nga da nga koy laaj luy sujoot parce que sujoot luxatan ak sujoot sharaan duñ benn sujoot bu juróom-ñaari cër ya manqué rek luxatan la waaye duhut sharia bu juróom-ñaari cër nag loolu mooy sujootu saria yàlla dong mu bind mbindeef yi moo ko xeeyoo sujoot boo xam sa ñaari bët woom yi ne ràpp ci suuf sa ñaari cetti tànk yi ne ràpp ci suuf sa ñaari loxo yi ne ràpp ci suuf sa sa jëbi ne ràpp ci suuf kooka yàlla dong moo xeyoo ñu sujjootal ko ko kenn du ko defal moromam nit kenn du ko defal malaaka kenn du ko defal yonantu kenn du ko defal sab sëriñ waaye nag am amma dajeg nit ki muy sëb sëriñ mbaa muy ab borom xam-xam ku baax nga sujjootal ko ci sa jëbbi nii jublu ci màggal ko ngir la yàlla def ci moom dara nekkut ci am na ñuy màggal seen buur yi di fóon seen feer seen loxo ya waaw ku sañ a buur maanaam loxo buur wax dëgg yàlla boo jëlee sa jëb yi teg ko ci loxol borom xam koo xam ne wëllu yóbbu yàlla la sëtu wëllu yóbbu yàlla la ngir la yàlla def ci moom ngay xeeñtu barke ba ca ñoom dëgg-dëgg dara nekkut ca sujjóot yàgg na fi aadamaa ngi nii ba yàlla defee lam def ca moom moo taxoon malaaka yaroot di ko sujjóotal usjudoo li aadama te yàlla fa leen koo digal de ci ngay yëgee ne diglee ka ñaara fa ne aadama dañ koo tere lañ ko tere baxut ko wala taqraba hadihi shajarata fa takuna min azalimin bul jege garab gi lañ ko wax loo jegewul mënoo koo lekk moom mu far lekk ko iblis ñu ne ko sujjóotalal aadama usjudoo li aadama malaaka yëpp dugg bañ dugalal ca iblis donte dugul malaaka waaye yàgg ànd ya tax aadama moom lañ ko digal aadama eh, eh, kon lañ ko tere mu def ko iblis lañ ko digal mu bañ ko ci la ulamaawu usool wax ne fettirlu bañ a def maanaam ndigle moo gën a garaaw féttirlu ba xëtt liñ la digal xëtt ndigal moo gën a xoyof féttirlu ki ñàkk def ndigal aadama dafa xëtti ndigal ca lañ ko digal donte dañ koo digal ci saahir tere ko ko ci baatin la ca xew rek xasa liy wax na ko waaye nag iblis moom dañ koo tere dañ koo digal moom defut waaye gis nga ko tamit ba tuub ga ñëwee fa taaba alayhi waaye kee moom yàqule na kenn mënutu koo defarati muy iblis kon ndeke xëtt ndigal tabaarakallaahu moo gën a garaaw euh, maanaam euh, li ma bëgg a wax daal mooy lu ñu la tere nga def ko moo gën a xoyof lu ñu la digal nga bañ koo def ndax kat kilifa gu day ni yàlla bu la digalee nga ba ngay def dafay tekki na da nga koo yab rek yabaati rek lay tekki kon nag moo tax ba yar ba ñëwee dal ci kawam aadama mi nga xam ne dafa xëtt ndigal la moom yàlla jégal na ko fa taaba alayhi kon su jootangoog yonentu yàlla yusufa doomi baay mee defaloon nañ ko ko inni raaytu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum lii saajidina ba mu waxee lu wax yaa bati haasa tawilu ruyaaya kon nga xam ne sujjóot bu manqué juróom-ñaari cër yi dara néew ci ndax sujjóotab aadama ba sujjóotab lunku la woon sujjóotab yonentu yàlla yusufa ak doomi baay mee sujjóotab lunku la moo yóbbu tamit sujjóot booba may wax moo yóbbuwaal tey jigéen ñi sukkal seen jabar yi seen jëkkër yi loolu su jóot la di waaye su la ci luxa waaye duur ki sariya fonk sa jëkkër yi rek ñëw di ko nuyu sukkal ko ku la ko wax su jóotab luxa la dara nekkul ci waaye sa jëkkër ji loo ko bëgg-bëgg boo ñëwoon di ko nuyu ne ràpp sa jëbi ci suuf ak sa bët wóom yi ak sa ñaari loxo yi ak ca tànk ya bokkaale nga yàlla ak sa jëkkër ji kon fokk ñi xàmmee su jootu sariya ak su jootu luxa sujootu sariya yàllaa ko xeeyoo sujootam luuxa koo ko defal yoonu yàlla nekkul ca rawatina buy ko yàlla màggal ba tey bokk na ca farata ya sujoot wax naa la ko toog ci diggante ñaari sujoot yi sujoot toog ba sa cër yi dal nga door a dem sujootiwaat toog ba sa cër yi dal sujoot booba farata la soo ko defee nag sopp nañ nga wax fa lii ci diggante ñaari sujoot yi allahumma axfir lii ni nii waafu an nii wahdi nii warsuq nii nga wax ko ba pare door a sujjootaat boo sujjootee tamit dañoo bëgg a wax subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi boo boo rukkooyee nga wax ne subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi soo ko gaawalee juróom yoon soo ko yéexalee ñetti yoon dana fekk sa cër ya bu mujj ba ak taaya ba yooyu yëpp Shaafi'iyuun yi dañ ne farata la waaye Malik àndut ci imaam Ahmad dafa ne farata waaye imaam Malik àndut ci. ñoom ñi ngi sukkandikoo xadiisu tabaraani bi ak bazaar ñu jëlee ci ibnu Mas'ud mu wax ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna tashahuda kama yuallimuna surata min alqur'ani wa yaqul taallamu fa inna la salaata illa bi tashahudin ñoom nag lii tax mu ibnu Mas'ud na yonentu fa nga daan jàngal taaya comme ni ñu jàngalee aw saar bu wàccee ci alquran daana wax ne jàngaleen taaya julli mënta wér ci lu duwut taaya moo tax imaamu Shaafi yu ne taaya farata la ci julli imaamu ahmad ne taaya farata la ci julli imaamu malik moom dafa ne sunna la waaye duhut farata ba sax imaamu dafa ne euh, sunna la waaye duhut farata kon toogaayu ñaareel bi sunna la loolu la malik gëm taaya ba baat gañ cay wax xam na werante ñi ne dañ ko sopp ñi ne sunna la waaye nag malik lim d'accord fi nga toogee war a wax assalaamu asalaamualeykum toogaay boobu asalaamualeykum war a tàbbi boobaa loolu moom farata la toogaay ba faratala la asalaamualeykum ja farata la ca loolu la gëm julli ci yonantu bi gannaaw taaya xam nañu ko lim ca farata ya imaamu saafi ca la bokk mu ne sa taaya bu mujj ba nga nga julli ci yonantu bi allahumma salli ala muhammad wala salaatu boo man yaa xam su boobaa mu ne farata la imaamu saafi loolu la gëm mu tegtaloo xaddiisu fu daala tubnu ubaydin mu ne yonantoo wax ne ida salla ahadukum fali yabda bi ta bi bi tamjidin bi tamjidi rabbihi wa sanaaya alayhi suma yusalli ala nabii suma yad'u bi ma shaa mu ne yonent na ne kenn ci yéen bu namee julli waaye waaye na tàmbalee màggal yàlla ak tagg ko nga julli ci yonent bi tamit nag su paree mu door a ñaan ida salla ahadukum fali yabda bi tamjidi rabbihi wa sanaaya alayhi suma yusalli ala nabii suma yad'u bi ma shaa imaam ahmad abu daawuda ñoo génnee hadis bi moo tax shaafi yu ci hadis boobu la tegtaloo ne jullu ci yonantu bi ca taaye bu mujj ba farata la imaamu malik àndu ci dafa ne sopp lañ ko rek ah, ba ca tegu tamit hadisu abi hurayra ba dañ koy tegtaloo ñoom hadis bi dafa ida faraga ahadukum min atashahudil axiri falyataawas billahi min arbai min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamaati wa min charri masihi dajjal hadis boobu imaam ahmad ak muslim ñoo ko génnee kon yëpp ca la imaam shaafi di ko def muy farata farata ya bokk na ca euh, sëlmal assalaamu aleykum gi nga génne ci julli gi farata la waxoon naa la ko ca commencement ba hadis bi ko tegtale mooy la yonent bi ne miftaahu salaati at wa tahrimuha at wa tahliluha at ak li yonent bi ne sallu kama raaytumuni usalli te mosuñoo dégg wala ñu dégg ku déggee ci moom ni juli na lu dul ba buy sal wax asalaamu aleykum baat bii tamit la daan wax faaw nga def ci lii fag laam asalaamu aleykum boo ne salaamu aleykum julli gi yàqu na boo ne salaami aleykum julli gi yàqu na boo ne salaamuna aleykum julli gi yàqu na boo ne salaamun aleykum yàqu na boo ne aleykum salaam yàqu na waaye li wér daal mooy asalaamu aleykum loolu la imaamu Maalik gëm bu mu fekkee nag imaamu saafi yu la moom boo ne salaamun aleykum mu ne baax na loolu la gëm moom waaye li gën a mat daal mooy nga ne asalaamu aleykum comme yow kenn rek la nag junj ko ci sa xibla bi rek sànni ko ci sa ndeyjoor mu jeex su fekkee dañ laa jiite woon sànniwaat ko ilimaan sa dëkkandoor la soo paree sànniwaat ko ki la féetee mooy sa dëkkandoor la yii mu ñetti ñetti sëlmal loolu daal ñaar yaa dañ koo sopp bu njëkk bi rek mooy sëlmal ab fukk baak ñeent mooy dal euh, cër bu nekk ponk bu ne nga caa war a nekk ba sa cer ya dal nga door a toxlu jëm ca beneen kon loolu mooy tumaaniinatu euh, fukk baak juróomeel mooy i'tidaalu daal nag mooy ni la yàlla bindee rek bu fa yu yuqamtalu ku la ko sant ngay taxawaay di yuqamtalu looy seenu wala bi maanaa nga nga nga nga rukkoo xaw a siggi wala nga sëgg ba mu jéggi dayo ku la ko sant xemal rek daal dafa baax kon loola moom farata la euh, su ko defee nag fukk baak juróom benn mooy tartibul arkaan toftale ponk ya na mujjee euh, na rek soo paree jàng fatiha rek soo paree rek gannaaw saar ba nga rukkoo soo paree nga siggi rek soo paree nga dem sujjooti rek tartib boobu nga toftale ko ni julli toftalooxee kooku farata la ci loolu ndax wérut ci benn saaba ne mos naa julli ci lu duut mu toftalee ko nii moo tax boroom xam-xam yu bari di ko di ko ca boole waaye Malik moom boolewut ko ca kon fukki farata yaa ngoog ak juróom-benn yañ dëppoowut wax naa la ko ca lu mel ni tartib bi ñëpp dëppoowuñ ci julli ci yonantu bi ñëpp dëppoowuñ ci toog ca taaya ba ak maanaam taaya ba ak boppam ñëpp dëppoowuñ ci yi ca des nag moom ñëpp ca dëppoo kon fukk juróom-benn la indil naa la ko. boo ma toppee suba ci waxtu wii ni ma la toftaleelee farata yi danaa la ko indilee sunna yi ci kartanal wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.